di ci sàkku ñu seet nan lañuy ñuy dindee ñaari mbooloo yooyu ñuy wax HCCT conseil éco euh, conseil des collectivité territoriales ak CSE muy conseil économique sociale et environnemental yaakaar naa ni ñu bare bare bare ci sénégalais yi ñu bari nag ba jéggi dayoo ku leen laajoon ñaari mbooloo yooyu luy seen njëriñ ci réew mi duñ la ko wax te ñàkk njëriñ gi bu fekkoon ne dañoo amul njëriñ yem ca waaye dañ cee boole di ñu lor lor gi mooy di lekk suñu alal ba pare di ñu fontoo président de la république ñëw na seet na ne liikat bokkul ci li ñu war a bàyyi muy wéy mu def projet de loi dugal ko assemblée nationale pour ñu waxtaane ko dindi ko jéego yi nga xam ni moom lañ ci jëkk a def dafay am foo xam ne moom la ñuy wax commission des lois ci biir assemblée noonu nga xamee ne noonu lay amee mbooloo mu ne dañuy seet kenn ku ci ne luñ la jox ne la lijjantil ko commission des lois boobu moo jëm ci wàllu lépp luy ay loi ñu xool ndax luy mën a nekk la wala du mën a nekk loi bii ñu dugal nag dañu ko rejeté mooy dàq nañu ko xëy na des na ay jéego waaye loolu li muy wone mooy commission des lois boobu ña ne coono bi nga xam ne moom la askan wi di jànkonteel safu leen ñaari institution yooyu ñaari mbooloo yooyu booñ leen boolee xaw nañ ñoo lekkal ci at mi lu mat fukki milliards ak juróom ba jëm ñaar fukki milliards loola yaakaar naa ne ku ko génnee woon am na fu mu xaj kon ñooñu nga xam ni ñoom ñoo nekk ca assemblée ba toogal fa askan wi waroon nañu ñoom loolu buñ leen ko indilee ñoom ñoo war a gën a yàkkamti ci mu deñ donte nag ñoo ko fa indi woon wala boog ñi leen fa jiitu ca jamonoy Macky sàll ja ñoo fexewoon ba loolu am loolu nag lu war a deñ la ndax nag weesuwul am say waay say farandoo say suq nga jël leen rek seet foo leen mën a dugal su weer dee ñuy fayiku lool képp la du leneen léegi nag bañ nañ ko des na jéego yuñ ci war a àggalewaat li jaadu ci askan wii mooy bés boo xamee ne ñi ngi koy def defe naa altine suba la nee ñu am na yeneen jéego yuñ ci war a dox su fekkee ne assamble nationale nangu ñoo voté loi boobu ñu xam ni kon ñoom la ma doon wax ñun ñii lañuy ñuy fontoo ñun askan wi sequñu ko président de la république sequñu ko ak Pastef sequñu ko ak premier ministre sequñu ko ak ñenn lu dul sénégalais yi ndax sénégalais yi la wax nañu fal sars yi nga xam ni moo tegu ci seen ndodd ndax seen ñu mën cee gis seen bopp nga ne loolu du am kon jot na nag sénégalais yi taxaw tem bu ñu àgg ci dissolution assemblée nationale nañ leen fa fekk nañ leen fekk ci assemblée nationale ba génneel leen suñu bopp parce que nag ku la yërëmul doo ko yërëm ku la wegul doo ko weg lii may wax nag ca kaw laa ko wax ab nañ ko ci ba fekk leen fàkki yat bu fekkee ne nangu leen a wote loi yoo xam ne yi amal amal nañu njëriñ te ngeen wote fi ba tàyyi loi yu amul benn njëriñ kon mooy da ngeen ñuy fontoo kon yéen seen mbir dafa war a gaaw nag léegi ñaareelu tomb bi ñuy wax ci kàddu yu gàtt la ndax vidéo bi dañu ma ko yónnee sama xaritu benn bakkan sama freer mel na sax vidéo bu yàgg la boo xam ni bii Ahmed xalifa ñas moo cay wax bay wax naan lislaam gi nga xam ni mooy lislaam ji ñu fi am ñun du lislaamu yonante ba lislaamu tubaab yi la ah comme boole boolewaale na ci xas wi woy juróom ya ko jur mën na am wet googu du metti ala kulli xaalin réew mi mu wax ne amul ay résistant amul ñoo xam ni taxawoon nañu jàkkaarloog tubaab bi di ko weddi loolu ay wax wérul la dëgg la réew mi nag am na yu ñu fi indi yoo xam ni yi ay wax yu yokku la ay wax yu yokk tubaab yi moom kenn amul ndam ci seen kaw loolu lu wér cëng la moom ay bañkat nag musta jóg ci réew mi musta jóg ci Afrique gii bi nga xamee ne tubaab yi jóge nañ ca njaam gu jëkk ga dellu si indi loolu ñuy wax colonisation toog ci suñu kaw bopp yi ba mu amee am na ñu ne woon du ca dal ñooña nag dañ caa néew doole dëgg la waaye am na ci ñu ci taxaw taxawaay yu wér cëng ñoo xam ne dañoo jëli gànnaay am ñoo xam ne jëluñuy gànnaay waaye opposition walla résistance ku ko weddi da nga bokk ci fenkat yi gën a bare yi gën a rëy lislaam joo xam ne ji nag dañu koy tënk ci ñett wala ñeenti nit di leen tëggali woy ak di leen propagandal moom nag moom wax dëgg yàlla amul ci Sénégal ndax fii senegaal am na ñoo xam ne ñii wallahi li ñu liggéeyal lislaam jéggi na dayoo te kenn dégguleen ci coow ak birwi résistance nag moom mooy fippu ay góor ak i jigéen ñu gore gore gore gore gore gore ñoo ko doon def ñii jël ay ngànnaay tàmbaleel ci Lat Joor nga xam ni moom lu mu gàtt-gàtt xam nañ ne moom àndul woon ci tubaab yi liñ doon bëgg a def loolu ñépp xam nañ ko te ku ko weddi ab fenkat nga mi ngi tàmbalee nag ca Faidherbe ba ak xëy na ñàkkul ñu ko jiitu am na fi ñu ñuy wax Archinard ak Gallieni loolu ñun jàng nañ ko ca école primaire ya Ahmed xalifa nee na fii ñu ñu jàpp ñu ñu ñu ñu tëj ak ñu ñu génnee ñoo fi am waaw loolu la loolu am na waaye nag opposition résistance wér cëng la tubaab ku mu ragalul du la bundu ñooñu li tax seen tur siiw ci ne ñoom ñoo fi nekkoon di jàmmarloog tubaab yi mooy la tubaab yi doon def neexu leen te tooguñu rek bank seeni loxo di ko seetaan ma ba jaxu ca la bokk Cheikh Hamala moom ma nga faf ci euh, euh, euh, bitim réew Cheikh Umarul Fouti moom itam dégg ngeen histoire am jaar tubaab yi fu ne Samori Touré jaar naag tubaab yi fu ne ba ci Ahmadou Cheikhou di doomu Cheikh Umarul Fouti amoon na it kuñ daan wax Béhanzin Xaadimu Rasul ñu indi ko yóbbu ko Gabon yóbbu ko Thiéyène yóbbu ko Mauritanie amoon na ku ñuy wax Mamadou Lamine Dramé moom itam la doxoon digganteem ak Moussa Molo nit ñi xam nañ ko alburi dégg ngeen histoire ba ci baayu wala maamu Ahmed Khalifa Niass Cheikh Abdoulaye Niass digganteem ak Pinet Laprade loolu histoire nettali na ko ñu bari ci ñooñu ku mel na Ahmed Khalifa ñees moo nekkoon ci seen wet loolu ñu wax renégat jaay leen tubaab yi ñu ci bare ci ñii may wax ay doomi réew mi léeg-léeg say mbokki jege ñaale ñoo leen tayle kon Ahmed bu dikkee tey jii di di ni mbokk yooyu nga xam ni ñoom ñoo taxawoon ne tubaab yi du ca dal defuñu fi dara muy ñu bokk ci diine walla ñu bokk ci ceddo gi wala ñu bokk ci feneen loolu mooy ñaawum xel loolu mooy alkande waaye nag ndokk ba nga xamee ne tubaab yi ñoo bindal seen bopp ndokk ba nga xamee ne tubaab yi ñoo bindal seen bopp mag ñi fekkewoon woon nettali nettali yooyu di law ba tey jii lu ci bare xamees na na mu demee woon kon tubaab bi dalee na a ëpp doole waaye ba ñu waree bañ bañ nañu ba ñu waree bañ bañ nañu kon kay résistance mooy lan lii nga may def neexuma nga taxaw ne du ca dal ak noo ko mën a defee rek résistance la am na nag résistance par les armes am na tam résistance pacifique mooy man de duma xeex waaye nag duma la nangu li nga bëgg danaa la ko wax ba nga xam ne lii neexuma parce que daf ci am ñoo xam ni ñi seen résistance pacifique li ko indi mooy dañoo xam xel ne tubaab yii seen fital ya seen bayonet ya seen kano ya ak seen fas yu am kattan ya ak seeni pexe ku jàkkaarloog ñoom da ngay tayle sa askan loolu lañu xam ña ca doon ay ceddo mel na Lat Joor ñoom seen ngor da leen di sóor ak jom ba ak na foo xam ne fii mënuñu ko bañ a àgg looloo tax Lat Joor daanu ca deqale ak ñeneen daanu feneen amal fuuti yi moom fa la jaare déggatuñu taarixam ci Bandiagara kon ñooñu ku ne duñu ay résistant danga xamul luy résistance jom ñi ko am foo leen fekk waxiku am jom la ñuy wax ñi ñàkk jom di wax waxi ku ñàkk jom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.